bonjour asalaamaaleykum sama gars yi voilà j'espère que yéen a ngi si jàmm moi aussi man it maa a jàmm seen série Like Mobile euh, euh, boo am xam ne WhatsApp da koo euh, maam da koo mettre à jour maam WhatsApp dafa dafa def mise à jour bees boo xam ne dafa am quelque yoo xam ne da ko da maam da koo yokkaat si WhatsApp bi voilà sans plus tarder ñu leen wax bu dee gan nga seen bi ñoo leen ñaan bul fàtte bés mu do bi daal di aimé bi activer cloche de notification bi pour vidéo boo xam ne dugal nañ ko rek nga bokk si ñu koy njëkk a gis voilà euh, pour euh, da nga bëgg xam astuce boobu mooy lan mooy WhatsApp dafa def benn mise à jour bu bees voilà euh, première fois bi ngay def mooy léegi dangay dem def sa Play Store yow voilà léegi boo duggee sa Play Store voilà léegi nga dem tapé WhatsApp voilà ak application bu ma doore bu defee mise à jour fekk dafa mise à jour doo xam système bi ñu si voilà léegi dañuy dem WhatsApp. voilà léegi la lay defoor sax mooy day xool ba am suñu application may mise à jour may laaj mise à jour wala voilà voilà li yéen a ngi gisoon léegi laajul mise à jour parce que mise à jour mise à jour nañ ko ba pare voilà léegi day cliquer ouvrir voilà boo boo bo boo xasee laaj def mise à jour ba pare léegi mën nga def ouvrir léegi euh, léegi mën nañu cliquer ouvrir pour mën a dem sa WhatsApp bi. voilà léegi voilà léegi suñu WhatsApp euh, mu ngi léegi euh, ñun. dañoo bëgg a xam euh, ban système WhatsApp changé ak yan la si defaat léegi dañuy dem si trois points nekk à droite léegi ñu dem paramètres voilà léegi bu ñu demee ñu dem comp voilà léegi euh, comp bu tëjee ko. première option ma ngi lay defal confidentialité voilà léegi da ngay cliquer confidentialité voilà léegi boo cliquer confidentialité euh, passe mooy tëjee voilà bo xoolee yaa ngi gis euh, quatre options yoo xam ne eh, yaa yaa koy jàkkaaroo muy vie photo de profil euh, voilà actu esthétique voilà léegi ñun ban lañu jël mooy photo de profil bi voilà léegi photo de profil bi moom moom lañu jël pour expliquer leen ban système la changé voilà léegi dañuy cliquer photo de profil. voilà muy xool photo de profil voilà yaa ngi gis mu defal la tout le monde mes contacts mes contacts Euh, personne voilà léegi bu dee da nga kaa def photo de profil voilà maa bu dee da maa photo de bu dee da nga kaa def tout le monde képp koo xam ne euh, dafa yor sa numéro euh, maanaam day bu duggee sa WhatsApp day gis sa maanaam day gis sa profil moo xam danga def da joxe sa numéro si réseaux sociaux wala wala fenn foo xam ne rek maanaam nit ñi dinañ fa dugg waaw voilà léegi jël sa jël sa numéro rek dugg WhatsApp automatiquement da ngay gis voilà léegi boo ko defee mes contacts képp koo xam ne enregistré enregistré woo yow numéro am maanaam du mën a gis sa profil voilà voilà léegi eh, moom moo xam moo xam ak fu mu ko mën di jëlee nag bu duggee sa WhatsApp yow envoyé le message ba nga répondre ko enregistré numéro am maanaam voilà léegi yow euh, doo mën a maam yow moom du mën a gis euh, sa. profil voilà léegi dañuy dem euh, quatrième option bi muy personne voilà personne bi nag boo ko defee képp koo xam ne da nga yor sa numéro moo xam nga enregistré ko wala enregistré ko voilà da nga léegi dañuy dem si mes contacts sauf voilà léegi boo cliqué mes contacts sauf euh, fii la la jéeg voilà yow say ami ma ngi nii léegi yow euh, da ami yoo xam ne da nga maam de bëggoo ñoom ñuy gis sa profil voilà léegi danga nga leen di tàppe voilà man ami la am léegi dama lay jox exemple rek bëgguma ñuy gis sama profil léegi dama koy kose voilà léegi boo kose automatiquement ma ngi lay laaj suivant maanaam parfois mu laaj suivant wala mu laaj ok yëpp c'est la même chose voilà léegi boo defoon suivant automatiquement léegi am yi nga xam ne tàppi nga ko ñoom dootuñu gis sa profil fekk euh, dindoo ko bu dee def am yeneen yoo si bëgg yokkaan nag fii ba sa am yi moo xam am ñun tool bu la neexee mën nga koo defandoo yëpp kenn du dootuñu gis sa euh, sa profil fekk ñoo dindi ko rek euh, léegi ñoom dootuñu am accès pour gis sa sa profil voilà léegi boo defoon su suivant automatiquement léegi dina dina maam day day day day jàll voilà euh, moo xam nga nga tapé trois wala quatre am yi lépp loo bépp am boo xam ne tapé nga ko rek ba ok rek moom dootu am accès maam pour gis sa maam pour gis sa profil voilà léegi léegi yaakaar naa yaakaar naa vidéo bi leer na léegi li tax expliqué leen maam yenn euh, option des maam dañoo defoon defoon si benn vidéo pour leere leen option yooyu euh, nan lañ koy activé voilà léegi bu ngeen demee si si suuf première bi maanaam am na lien bu fi nekk voilà ngeen si daan vidéo boobu dina leen mën a leeral naka ngeen di def ba ba régler yeneen yeneen yeneen option yi si des maam vie euh, ak esthétique voilà sama gars léegi loolu ma doon vidéo bi ñu leen wax bu dee bu dee abonné go bul fàtte abonné daal di activer cloche de notification bi euh, parce que euh, cloche de notification bi moo la mën a permettre euh, nga nga nga maam nga am accès maam suñu suñu suñu seen ba vidéo boo xam ne dugal nañ rek yow di nga bokk si ñu koy njëkk a gis tootoo tardé benn vidéo voilà sama gars yi léegi ñu leen jox rendez-vous ak di leen joxaat dig daje si beneen astuce ak beneen vidéo voilà ak like mobile voilà sama gars jëf.